salaamaaleykum chers téléspectateurs di leen ñu ci seen émission le meilleur et le pire alors remarqué ngeen ko le meilleur et le pire dafa fas yéene ak yéen chaque vendredi ngir wan leen seen bopp ni ngeen di ci tali bi euh, toppal nañ leen ñaari taxi benn minibus ak benn particulier ma bàyyi leen ngeen seetaan élément bi ñu dellu si waat. salaamaaleykum chers téléspectateurs ñu ngi amaat mbégte di leen dalal ci seen émission le meilleur et le pire semaine bi toppalaat nañ tali bi. bi ci njëkk mooy euh, Logan bu marron euh, bi benn 4x4 bu ñuul toppal nañ leen tamit suñu voiture numéro 3 mooy benn minibus euh, suñu voiture numéro 4 moo doon benn taxi ñu xooli seen comportement ci tali. bon ok léegi ñoo ngi topp oto bi tali bi. donc gis ngeen ko suñu premier conducteur ñoo ngi ci côté côté amitié diggante amitié ak point E jëm direction Bourguiba. conducteur numéro 2 mooy 4 x bu ñuul bi nekk ci kanamu taxi bi euh, taxi bee ko xawoon na ba mais di ngeen ko gis ñu xool comportement am. bon ok ñoo ngi topp euh, benn 4 x bu ñuul bi ne nii suñu kanam. mu ngi woo téléphone dañ ko seetlu mu ngi yor téléphone bi donc dañ koy jéem topp xool comportement donc moom déjà nañ ci première infraction téléphone au au volant donc mu ngi yore téléphone am depuis euh, rond-point école bi. bon ñoo ngi topp camion bi déjà porte arrière yi amul benn porte arrière euh, amul plaque matriculation amul lumière ci ginnaaw bunt yi ni ñu mel sax euh, dara baaxut donc euh, moom la ñuy jéem a topp xool comportement am ci kaw tali bi. gis ngeen ko nii comprendre ngeen ni euh, changé nañ ñoom ci suñ conducteur numéro 3 bi mooy bindu bis bi ngeen gis nii ci di daw ci ay conditions yi doy waar. Euh, suñu conducteur numéro 4 mooy taxi bi nekk euh, seen kanam ñoo ngi ci corniche bi jógee euh, côté Radisson jëm Soumbédioune ñu xool son comportement. donc ñu delluwaat suñu premier conducteur bi mi ngi nii. bon oto bi romb mais actuellement. respecté wul feu parce que feu bi dafa xonkoon mu romb ko donc euh, respecté wul feu de signalisation bi parce que bi muy romb la feu était rouge. gis ngeen ko ni commettre na sa première infraction donc respecté wul euh, feu bi donc ñu jàpp ni suñu conducteur numéro numéro un mi ngi ci benn infraction conducteur numéro deux bi nga gis ni mi ci benn infraction tamit. ok dañu fa egg euh, ci croisement bi normalement dafa war a signaler. mais signalé wul. donc il vient de commettre sa deuxième infraction euh, signalé wul bi muy jàdd ñu continuer xool ko ba tey ñu ngi suñu kanam. ko ci beneen croisement mu ngi nii di jàdd deful signalé wul toujours. troisième infraction pour suñu conducteur numéro 2 bi. donc euh, ñu bàyyi ko fa dem xooli numéro 3 bi suñu minibus bi. comme que amul signal amul làmp day tourner nu mu ko neexee signalé wul. gis nañ ko nii moom moom mi ngi cumulé infraction yi di dem. amul rétroviseur pour mën a gis. amul dara manqué wul temps d'arrêt bi muy génn. alors que le temps d'arrêt il est obligatoire ci croisement bi respecté wu ko. gis ngeen ko ni euh, nu ko nu ko neex lay dawale mi ngi déjà au bout de minutes mi ngi ci euh, six infractions ñu xooli suñu conducteur numéro 4 bi taxi bi moom amagul benn infraction ñoo ngi nii ci sur la corniche jëm direction Soumbédioune ñu bàyyi ko fi en repérage dem xooli waat euh, suñu logaan bi moom benn infraction la defoon respecté wu loon feu bi. vous allez bien. moo xool sa permis de conduire. ah. ndax danga nga def dara. waaw moo xool permis ba pare. moo xool carte grise bi. bi ñëwee ba dañ la toppee depuis euh, émission la ñuy tourner quoi. pour xool le comportement routier de nos concitoyens. ñu la toppee depuis canal euh, canal ba fële. voilà bi nga génnee. ba Seydou Nourou Tall. Il aucun problème. Même le feu, vous l'avez respecté. Mais deuxième feu, lorsque vous traversiez, le feu était au rouge. Le premier feu, au vert, vous êtes, vous avez, vous êtes sorti. Mais au deuxième feu, dans la robe directement. Rouge. Vous n'avez pas respecté le feu à ce niveau. Du Vous n'avez pas vu jouer sous rouge. Donc vous n'avez pas regardé le poste. Vous venez au commissariat central. ndax fii amul pardon. si am na pardon tey. mais xam nga dafa am lu ñu mën a pardonné ak lu ñu mënul pardonné. waaw jàppale ma rek. indi accident. non respecté feu day indi accident. non je je vais pas euh, risquer la vie moi aussi. non je sais je sais. bu ngeen nee commissariat. central. gis ngeen ko noonu euh, verbaliser nañ ko ñu xooli euh, suñu conducteur numéro 2 moom tamit ñu sommes au bout de sa poursuite euh, ñu déglu ko ak agent bi mu expliquer comportement am. sëñ bi na nga def. mbaa yaa ngi ci jàmm. moo xool permis bi ak carte grise bi. fàttaleku nga fi nga jëlee téléphone ba fi nga koy raccroché bi nga nekkee au volant fàttaleku nga distance bi nga daw yor téléphone bi gudd na trop croisement du croisement de fenn yaa ngi yor téléphone ensuite boo ñëwee ci croisement nga war a jat loo war a def signalé woo benn yoon ah trajet bi yëpp signalé woo fii ah, nga jàdd nii deux voies la coupé bi tamit du yoon voilà donc def nga infra ñetti infraction yoo xam ni bon nangu nga ko. nangu naa ko léegi nag il faut ñu ñu téye permis bi bindal la jërëjëf. waa paa bi dañ koo topp benn dañ ko topp au bout de quelques minutes biñ ko biñ ko toppee seetlu nañ ni dafa yoroon téléphone bi muy utiliser téléphone bi di dawal topp téléphone bi ba après bu naree jàdd du signaler te normalement da nga war a signaler balaa ngay jàdd mu ñëw. ba ci deux voies euh, boulangerie jaune yi nga xam ni danga nekk dans l' obligation war a dem def sens bi soog a dem foo war a dem mu dagg ñaari tali yi loolu tamit beneen infraction ci mujjanteel bi ñu arrêté ko wax ko lépp lu mu def bi ñu ko toppee ak léegi mu nangu ko bon ñu bindal ko kay pour woon ko wax ko nii mu ñëw commissariat mu fay. léegi ñu xooli suñu conducteur numéro 3 bi mel ni bis bi. sëñ bi na nga def yaa ngi si jàmm alhamdulilah boo xool sa permis sa carte grise ak sa assurance Modou Anta sa oto bi amul visite technique parce que suñu ko am n'est-ce pas DK la mais mënul am visite technique mais terewul yaa ngi dawal dañ laa topp fu sore bi ñu toppee ba léegi seetlu nañ ni sa oto amul sa lampe équipement technique bi yëpp dafa defectueux donc yow déjà tu es zone danger public ah nga demee dañ lay teg loxo après nga ñëw commissariat central. parce que oto bi fourrière la war a dem. gis ngeen ko noonu euh, defal nañ ko fii ci mobilisation ñu xool suñu dernier conducteur muy taxi bi ah moom bi ñu ko toppee ba tey amagul benn infraction jugee nañu euh, euh, ci corniche bi côté rond-point Atépa ba yegg si ni Soumbédioune ñu xool kook agent bi. ça va monsieur na nga def. yaa ngi ci jàmm. waaw ah, alhamdulilah sant yàlla. waaw na nga def. sant borom bi. alhamdulilah. waaw dañ la toppee ci produit bi ba fii. Ah. waaw ñu seetlu ni vraiment ni ngay dawalee bon euh, ñu ngi koy rafetlu. parce que yaa ngi signalé dafa am émission bi gars yi di tourné pour xool euh, usager de la route yi nan la ñuy comporté woo quoi dañuy jékki-jékki rek topp benn oto. xool ban comportement lay am donc ñu ngi lay gis yaa ngi signalé yaa ngi dawal normalement. on a décidé de l'offrir un bon de carburant de vingt accord lan nga xalaat ci comportement conducteur yi ci tali bi. Ah, xanaa ñu war a setal rek parce que nit ku ne liggéey liggéey daal war nga ko setal ba am ci félicitation ah, man de du ma damu mais 35 ans yu topp maa ngi dawal mosuma dem commission. ko chers téléspectateurs euh, semaine bi euh, le meilleur conducteur parmi les quatre euh, mooy suñu taximan bi mooy conducteur numéro 4 bi le pire mooy borom minibus bi gis ngeen ko nii amul benn équipement technique ci oto bi donc ñu bàyyi leen ak seen quiz voilà chers téléspectateurs chaque semaine dinañ fas yéene ànd ak yéen ci benn quiz pour ñi nga xam ne nag yàgg na bu ñu amee seen permis de conduire te fàtte code de la route ak ñi nga xam ne nag ñi ngi fas yéene passé seen permis de conduire ñu jàngal leen code de la route alors chaque semaine mën ngeen nag participer ci jeu bi ngeen xam ne di ngeen mën a gagné ay bons de carburant ay bons d' assurance ak yeneen i loo ma bàyyi leen nga seetaan quiz bi ñu dali si sixeele ba yoon bi auto bu jaune bi ak bu verte bi dañoo am panneau de stop maanaam dañoo war a taxaw obligatoirement auto bu rouge bi day aw ci yoonu auto bu bleu bi donc doo koy may mu jàll même chose pour auto jaune bi ak bu verte bi ordre bi donc mooy 1 bleu 2 rouge 3 jaune 4 vert ci silibé yoon bi oto yi dañu war a topp benn ordre ban moo ci war a njëkk jàll 1 bleu jaune rouge 2 rouge bleu jaune wala 3 jaune bleu rouge envoyez leen ñu seeni réponse ci suñu page Facebook Net Transact Prod. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission Le meilleur et le pire. balaa nag ñuy gisee waat euh, semaine prochaine ma wax la ngeen def attention ci seen parce que maa ngi seen ginnaaw. merci de nous avoir suivis à vendredi incha allah à la même heure sur la 2STV. revoir.